waaw mais Cheikh combat yi vraiment jafewul woon aussi parce que làmba boole dara jafewu ci woon mhm. dox bi it yàggul parce que Gaston production moom mbër yëpp ay doomam la mhm. mbër yëpp la fi nekkal te it mbëre combat Gaston production it mbër mu ne bëgg na parce que duñ ko sa duñ ko duñ ko tiitaroo mbir yàlla la parce que fii kenn mënul dara ku yàlla jàppale rek moo fi nekk ñu ngi sant yàlla nag bi nga xamee ni làmb ji mi ngi ciy jàppale ci doxalin bi ci organisation bi ci lépp luñ koy defee parce que ñaanuñu yàlla di tëgg làmb làmb jay yàgg ak di nekk yi problème ak à part jamono yi ñu génn nga xam ne ci Covid bi la woon <laughs> malgré tout ça nag fexe nan ba tëgg fi ay combat yu bari parce que bi ñuy ñëw ci Covid bi comme benn combat taxawul woon mais li ñu taxawaloon ñëpp ñu ngi dem. Mhm. ñu koy bëri. suñu ci amee problème it kenn du ko xam parce que duñ ci amee mbër xaalis kuñ ci sa avance jot dana la ko jox ku sa reliquat jot loo bëri ci amoo une semaine ñu joxoon sa xaalis. Mhm. donc yooyu yëpp ci sant yàlla la bokk te mbëri it. li tax ñu euh, bëgg it ga taamuwuñu Gaston Production mais bëgg nañu Gaston Production. Mhm. ndax Gaston Production si sécurité la. sécurité la ci say cachet sécurité la ci lépp modestie à part loolu moom làmb ji ñëpp xam nañ loolu. Mhm. te it nag def nañ ci làmbit loo xam ni dañuy ñaan yàlla sax suñu doomu promoteurs yi suñu jarbaatu promoteurs yi def sax lu ko ëpp. ba tax ñu leen di encourager tout le parce que ñoom it ñu ngi mhm. mais nag ñun tam ñu ngi sant yàlla bu baax ci li nu yàlla defal ba nga xam ni tey mbër yu mag yëpp tëgg nañ leen tey plateau bi euh, programme bi euh, euh, diis na ca mm-hmm. làmb cachet yi dafa diis mm-hmm. dafa bari kenn mënu koo profité moo tax làmb yi sorante nii sax mm-hmm. parce que làmb yu mel nii làmb ay Balla ay Gris Bordeaux ay Boy Niang ay Eumeu Sène Sa Thiès rëg-rëg nekk ci ak yi passé yooyu kenn mënu koo tëgg ci benn weer ñu koy tegale mhm. fokk aussi ñu may nu temps boo xam ni temps de d' organisation temps de réalisation buñ ko mën a defee pour Sénégal gépp mën a kontaan mhm. lamb ñëpp xam nañ ni facteur de développement la waaye lamb nekk na sport boo xam ni dañ naan football dafa mën a boole waaye sport la boo xam ne moom it day boole lamb mën na liggéey sax ci stabilité réew. bu réew mi demee ba pëcc jaxasoo. bu lamb ñëwee mën naa delloosiwaat réew moom léeg-léeg sax nag ñu toog réew mi xaw a gooy comme ni ko mag ñi waxee lamb mën naa indiwaat li nga xam ne moom mooy euh, yëngu-yëngu ci réew mi mooy yëngu-yëngu bu positif lay doon. combat bi nag dafa nekk combat boo xam ni combat dër bi lay doon. xadi colonel maa wax yow combat dër bi lay doon ndax ñoom ñaar kenn ku ci nekk kenn ki daa war a dem. kenn ki tokk te ci combat bii lay amee ndax diggante Sa Thiès ak Boy ñaar loolu la woon Boy Niang dafa buggoon dem cour des grands mu ne nañ ma jox Balla Gaye boobu xëy na soxla na bàll gay waaye xam ne ni faw mu ñam rakku Balla Gaye doog dem ba mu ñamee rakku Balla Gaye ci la doog a continuer nag jëm ci cour des grands looloo tax nag combat bii faw mu am ñoom ñaar ñu ñamante ku ci génn rek dem ci cour des grands combat confirmation la lu munta ñàkk la mm. combat xam ne ñàkk rëg-rëg mënul woon bëre kenn ku dul Sa Thiès hmm. Sa Thiès mënul woon kenn ku dul rëg-rëg hmm. dégg naa sax léeg-léeg ay wax yoo xam ne ñoo naan Sa dafa may chance rëg-rëg mais loolu ñi koy wax ña ñàkk xam rëg-rëg la Alaaji Mbaye Ngoné Fall kan mooy Sa Thiès Sa su ma sañoon dag may bàyyi tuuti ma dugg fi Gaston mujjee bismillah mu ne yaa quarante ans de cela loolu Cheikh soo ko fekkee jamono yooyu bokkoo ca te maa ngi taxaw bàyyu kii moom nañu jël mu def ci ndakaaru lu réere ndax booba baayam dafa dóor Robert mu daanu mu dóor mbay Guèye la Tigre de mu daanu Boy Remarque waalo la dëkk mu dóor ko tànk yi laxasoo mu nangu ko ndax jël la dafa daanu ñu jox ko Boy Bambara mu daan ko ci stadium bi ndakaaru gépp ak Sénégal am lu leen naqari mhm. ñaar ñi nga xam ne ñoo ngànkoon làmb gën a am lu leen naqari ndax Hadj Mansour boobu noo yeewul kenn ku dul mbay Gueye la tigre de Fass boobu Hadj lay Naar noo yeewul kenn ku dul Robert mhm. ñu am ca lu leen naqari lool lool ñu ne lii doon koy faj boobu cachet yooyu un million et quelque ñu ñëw yónnee caaroy géej boobu El Hadji Abdoulaye Diouf Fall papay Baye Mandione moom moo yore papa kan ñu ñëw ci moom wax ko ne ko mën nan laa fay un million cinq cent mille Abdoulaye Diouf bañ ñu tegal ko ci deux cent mille Abdoulaye Diouf Fall bañ ñu dem a dem ba mujj ñu ne yebal leen ab Abdoulaye Naar mu dem caaroy waxtaan ak kii la xam ne moom mooy alaaji Ablaye Diouf ba xam ndax combat bi ci moom la téye ba léegi lu ko naqari nangu woon nanoo dem ba may ko cinq cent mille pour combat bi taxaw mu ñëw boobu fekk na soxna Papa Kane ñu ngi koy wax astu bokkoon na ci ñi daan ñaanal Papa ndax moo ko boole woon ak ku ñuy wax Yaxub Uldu Baba mu ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Butu Limit Butu Limit waaw chérifub naar la mm. bokkoon na ci ñi daan ngemb Papa Kane Butu bokkoon na ci ku ñuy wax alaaji ci ka ñang alaaji ci ka moom lañ tuddee baayam bu ndaw ñu koy wax kan moo daan ngemb papa kan daal di jël ndey aram di ko tëj ci néeg suba ba ngoon su papa kan dee génn mu jurat ak moom daa koy ne demal su demee mu do ba keroog bi muy dóor mbay géey ma nga ca ngeesu doonoo dem bay taxawal timis bëgg a julli mu ne taxaw leen tuuti ndaxte su suñu kaabaree julli gi mën naa am mu yàqu wala du egg taxaw leen mu dóor ko mu daanu ñu taxaw tuuti boobu téléphone amul dara amul doonoo jekki-jekki rek dégg yuuxu yi ci biir caarooy géej ñu ne lan la nit ñi daw ñëw ba ngeesu ci àll ba fekk leen fa daan ni àllaaj ci kanam naa ñu ne papa kan dóor na mbay géey mu daanu léegi nag bi Ablaye Diouf demee Alaaji Ablaye Diouf dem ci sëriñ si sëriñ si ne ko nanga teey fii ak asamaan si siitul ba nu fatu fat bagaas yi nga xam ne dara dara dootul yàqu jant bu papa kan jëlee duubalees duubalees dina ko def ni papa daan def mbëri waaye su bàyyee ba asamaan si siit nu wat ko ab nel defal ko duñ koy defal su ñëwee ci làmb ji nu mu daan def mbëri su karogee dina ko def duubalees ah. ñu ñëwaat daal di koy ne léegi deux million gi nii bi ñu ko nee deux million gi nii Alaaji Ablaye Diouf Fall daal di bañ. mu mm-hmm. ñëw Alaaji Ablaye naar laaj ko ne ko lan la mu ne leen dafa am lu nekk ci biir combat bi loo xam ne Papa fii mu toll duma ko bàyyi mu bëreeg Double Less li ci biir lépp ne ko xamal na ma ne sunu demee ba nga xam ne asamaan si siitul ba laal suuf su bëree ak moom dinañ ko dóor mu daanu. Papa mooy papa rek rek baayam la ndax moog baayam ñoo bokk benn baay dama dul tudd turu baay. duma ko tudd. <laughs> du ma tudd nu baayam tudd. waaw Double Less ba tey tudd Double Less waaye waaw mooy Pape Saké tey taarix léegi lu taxaw Alaaji Ablaye Diouf nettali ko li ci am lépp lépp Alaaji lay naan ne ko lankal bu wut ko la lànkale fii Papa Kan tollu ëpp naa daanu ci këru àdduna ñu jëlaglu ko dem ca Baye Modou Kan maamam Baye Modou Kan bu caaree géej dem daal koy ne Papa Kan ñi koy bañ loo Alaaji Ablaye Diouf su santoon kan dina nangu deux millions yi ndax deux millions kenn mosu koo dugal ci làmb na jël deux million yi mu jël deux millions yi bi mu jëlee deux millions yi papa kan keroog ngemboowul caaroy géej tëngéej la ngemboo ba mu ngemboo tëngéej ñëw laata muy ñëw as Ablaye Diouf Fall ñëw na ne ko loo nar tey mu ne ko damaa nar a xeex mu ne ko bul xeex baaxul ndax am na loolu ma wax te loolu nu ma soo ko ci wuyoo du baax mu dem dooba les dóor ko mu daanu oh. looloo tax ñaan ñi seen diggante suñ demee ba ak bit sifflé eh. suuf dina yëngu lu wér la wallaahi lu wér la wax ñaar suñ demee ba at bi jóg seen diggante raay ku nekk lu sifflé seen diggante ñoom ñaar wallaahi suuf dina yëngu lu wér nga ndaxte doon ay mbër yoo xam ne kii recto verso la ndax njaati mi jur ndeyam moo mënoon ci pikin am paala jóob déet diggante boobu yëpp njaati moo fa mënoon ku la neex laaj ko wallaay papa Njaay njaati moo fi mënoon boobu papa Ndiaye njaati la ndaata Kembarga Mamadi bi moom ma Jacques Dutronc ak euh, ak Ndiaga Ndoye ak Ndongolaay Bey Ndongo Bey ak Ablaye Diouf Fall ba papay bàyyi man ñoom ñoo fa nekkoon ak Sele Dieye ñii ñoo fa nekkoon jërëjëf Ndiaga Ndoye mooy moog bàyyi Lac ñoo bokk benn baay Lac Rose mii la sant ay mbokk ma nga caaroy géej jërëjëf loola tax suñ fa duggee dafay metti metti boo xam ne eh. ñoom ñaan nag suñu duggee seen palmarès nag dinaa ci ñëw ak fi nu jaar eh. foofu dafay doy waar dinañ ci ñëw jërëjëf kontaan nañu alaaji Mbaye Ngoné Fall Khady Colonel gis nga li may wax rek mag jar naa bàyyi cim réew rawatina mag mu mel ne alaaji mbay Ngoné Fall bu la waxee taarix wax ji dana leer dana kuutal date te dana kuutal ay seede ndax dëgg dafay tungam seede tey nopp dalootina mais euh, gaa yi xam nañ yàkkamte nañu Sa Thiès wax yàkkamte nañu Reug Reug wax dañ koy écho euh, face to face dafa am nu muy doxee dañ koy écho di ko naj parce que ñii pour seen wax du war a gaaw noonu li ma bëgg rek damay dugaat ci makkan makkan mbeng la ñuy waxal xam naa li may def bu baax toog leen rek dañuy dem ci makkan mais day amatul ñëw ci stade bi yu bari par rapport leen taan ñoom Euh, ki nga xam ne dugal ci suñu loxo mm-hmm. bu tabaski ñëwee